réew mi yéen ñëpp gis ngeen ne jamono bii euh, politiciens yi dañ ko téye en main fas yéene politique Sénégal te yaakaar naa jamono bii war nañoo yu nekk fii di wax yoo xam ne ay waxu ñàkk fayda la ak waxu sare dinaa tàmbalee ci point de presse bi nga xam ne nii kii di premier ministre def na ko di wax ci tolluwaayu réew mi ak fi ko Macky Sall bàyyi te yaakaar naa ne loolu mooy norme yi nga xam ne maanaam képp kuñ dénk am réew. balaa ngaa mën a maanaam war ngaa wax sénégal yi fi nga jëlee réew mi ak fi nga ko nar yóbbu loolu c'est très important parce que nag yéen ñëpp xam ngeen makki Sall ni mu yore woon réew mi mu yor ko ci yoreen woo xam ne yéen ñëpp teg ngeen ci seen bët ci côté injustice ci côté salfaañi alalu Sénégal ci côté maanaam façon bu nekk façon maanaam yoreen wu salte wu nekk Macky Sall ni mu ko yore woon Sénégal nga xam ne ñëpp ci teg seen bët. kon tey yaakaar naa bu ñu demee ba premier ministre bi génn bi leeral lu ñeel yorinu Macky Sall réew mi foog naa ne ñu baree bari war nañoo mën a xam ne kii li muy wax nii c'est très normal mu wax ko wax ji premier ministre wax nag mu jul coow yu baree bari ci ay euh, nit yoo xam ne yaakaar naa ne amuñu benn expérience ci lu ñuy wax lu dul yabaate ak reewande parce que man damay wax ne Ousmane Sonko wala boog régime bi fi nekk. ñii ñu fi fekk dañu leen a yàpp parce que man mënumaa comprendre Macky Sall ni mu yore woon Sénégal ci yorin wu ñaaw ci injustice ci lépp ñii fi nekk nii doon ci teg seen bët amul kenn ku ci ñemoon ubbi sa gémmiñ wala nga taal sa écran jàkkaarlook Sénégal yi di wax naan Macky Sall da ngay fen wala Macky Sall waxoo dëgg wala Macky Sall nangam mais pourquoi ñii ñëw defaguñ fi sax six mois yu mat chaque jour que jëfee lu ñu wax ñu ne waxuñu dëgg dañuy fen wala dañuy nangam dañuy nangam tey ni nii Ousmane Sonko li mu wax c'est très clair et net ci mbirum chiffres yi nga xam ne maanaam mooy li aju ci mbirum ministre de finance nga xam ne Ousmane Sonko dafa wax ne euh, Macky sàll bor bi nga xam ne moom la bàyyi ci réew mi jéggi na day ak ni mu salfaañee réew mi ci mbirum FMI mu ne nag ñi ma duut baaraamu tuuma mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ay ministre des finance ku ci mel ne. Euh, ku ci mel ne maanaam kii ñuy wax Moustapha Ba ak ku ci mel ne Amadou Ba ak ku ci mel ne kii nga xam maam moom la ñuy wax euh, Abdoulaye Daouda jàll mu ne leen yéen yéen a war a génn leeral Sénégalais yi li ma wax yéen yéen war a génn leeral Sénégalais yi jusqu'à présent amul kenn ci ñoom ku génn démentir Ousmane Sonko ci li mu wax kon est-ce que ay Samba Sougou Ngaye yu tekkiwul dara ay Bougane Gueye Dany ay Yirim Seck ñoo war a génn di démentir Ousmane Sonko. Ousmane Sonko li mu wax nee na c'est vérifiable dem leen ngeen xooli ko ci plat maanaam ci ñi ma ko partagé mooy ku mel ne Fonds monétaire international wala lu mel ne FMI dem leen ngeen vérifier lii ma leen wax parce que chiffres yi maanaam li li fi Macky Sall bàyyi bor bi moo ko ëpp téeméeri junni yoon te kii di Moustapha Ba nekkoon dernier ministre des finance bu Macky Sall moom avoué na ne Ousmane ne maanaam ñoom kat ay la yéwén dañoo salfaañe chiffres yi dañ ko falsifié ku ne xam ne mbirum falsification moom ak nguuru Macky Sall ñoo ànd mbirum falsification ak jalgati ay chiffres loolu moom yàgg na nguuru Macky Sall kon tey bu su Ousmane Sonko génnee wax wax ju leere nii daan ne Moustapha Ba Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba génn leen ngeen leeral Sénégal yi lii jusqu'à présent est-ce que gis ngeen kenn ci ñi ku génn leeral loolu saaba diir dire que li mu wax dëgg ju wér kéng la lu am la mais lan moo tax politiciens yi bëgg cee langaamiitu jàppee Ousmane Sonko benn menteur benn wax ko lu dëgg di ko dégg ngeen Yérim Seck li mu wax ba yoon woo ko tey ku taxaw ne Ousmane Sonko wala Diomaye dictateur la yow waxoo dëgg ta fenkat nga dañu waxante dëgg Yérim sekk lii mu wax lii mu wax Ousmane Sonko musu koo ñemee wax Macky sàll parce que Yérim Seck nee na Ousmane Sonko dafa fen ba jot nguur gi bëgg a fen ba gouverner Sénégal te loolu du fi nangu est-ce que loolu yoon la nit du ko wax loolu ku ne xam ne offense la. ku ne xam ne ne dafay yabaate parce que loolu wuru ko wax premier ministre te bu fekkee fenn Cheikh Yirim sekk ci moom lañ ko gën a xame tey jii nii Yirim sekk moom àddunaam lépp li xam mooy maanaam wax loo xam ne dara du ci dëgg dara du ci dëgg sos ak yàq der loolu mooy rôlu Yirim sekk te Yirim sekk ñépp xam nañ ne maanaam benn mercenaire u Amadou Bala Yirim sekk moom day langaa ci nit pour di ko xalamal gannaam ak di ko sosal ak di ko fenal ak yàqal ay gor moom yàq gor moo nekk mission ci kaw suuf gëmul dara ci àdduna la mu waxoon démb ak barki démb saa boo ko comparé dafay wute kon kooku du nit tey jii man li ma jaaxal yi Ousmane Sonko li mu wax ñi war a wax kenn génnul tontu ñi warta wax kese ñooy génn di tontu pourtant Amadou Ba mi ngi dund Moustapha Ba mi ngi dund Abdoulaye Daouda jàll mi ngi dund est-ce que génn nañ ñu démanté Ousmane Sonko mais non amul kenn ku génn ak ñoom ko démanté Ousmane Sonko. kon li Ousmane Sonko wax dëgg ju leer naññi la parce que ñi war a tontu ñi ngi toog ne mukk seen ruq lan la ñuy xaar pour tontu pour naa ñoom barki Demba Ndiaye lañ def si dañ dem fële seen rassemblement ne dañuy indi livre blanc maanaam di rafetlu liggéeyu Macky Sall bi mu def ci réew mi seen livre blanc bi xanaa kay waruñoo nangu Ousmane ko di ko gàkkal bu fekkee livre blanc bi dëgg la ci ñoom nañu ñëwaat jàkkaarlook Sénégal yi ne leen Ousmane ko li nga wax du dëgg su boobaa ñi nga xam ne ñooy atte daañu atte mais li mu li kenn mënul comprendre mooy premier ministre indi ay chiffres yu leer teg wax devant tous les sénégalais ne leen kii di Moustapha Ba keroog bi nga xamee ne gagné nañu réew mi woo nañ ko fële ca hôtel Azalaï mu ñëw dëggal li nga xam ne maanaam mooy wuruj yi ak maanaam falsification yi nga xam ne nguuru Macky Sall lañ ko falsifié maanaam chiffres yi Yérim Seck dafa ma a liggéey ci administration bu Macky Sall lan la ci xam bay génn di weddi naan Ousmane Sonko fenkan nga Bougane Gueye Dany lan la xam ci mbirum administration Bougane Gueye Dany moom problème mu chiffre da ko yàgg am xamul dara te Bougane kuy wan nit ku naafeq ak nit ku mën a fen jàppal Bougane Gueye Dany Bougane taxaw na fii devant tous les sénégalais fàtte xaju fi mu ne kii di rak kii di goro Macky Sall di Mansour Faye dafa leb quatre-vingt-dix-huit milliards ci turu Sénégal daal koy damm ci poosam càcc gi Macky Sall nekkoon ci réew mi ak i ministère am Bougane ñaata yoon la taxaw di ko dénoncé. mais kon tey est ce que Bougane bu taxawaatee bëgg a weddi loola ne Ousmane Sonko waxoo dëgg kon ban Bougane la war a jàpp ñaari Bougane xam nga ñii dañuy politique Ousmane Sonko daa taxaw tem pour liggéey réew mi te gis nga mbirum FMI bii ñuy wax yéen ñëpp dégg ngeen Ousmane Sonko nee na son ba Bassirou Diomaye Faye recevoir na directrice su FMI bi lan la ko xamal pour ñu ñëw jël xaalis Diomaye xamal ko ne mënuñoo jël xaalis te li weesu mënuñ koo leeral ba pare. parce que li weesu dara leeru ci li weesu dara leeru ci kon Macky Sall bu demee ba benn sénégalais bu nekk mu leb ci yow lu toll ci neuf cent mille francs sam ndodd la commencé ca mag ba am quatre-vingt-dix ans ba liir bi juddu démb war ngaa fay bor boobu mais est-ce jërul leeral ci kanamu sénégalais pour mu leer parce que nit boo ko dénkee mbir dafa war a dafa war a saytu li nga ko dénk ba ne bi nga ma koy jox nii la mel bi ma la koy delloo aussi nii la mel. boo defee résultat ñu xam bu fekkee da ngaa aussi ñu xam Ousmane Sonko li mu doon def loolu la jublu mais pas politique mais ñu bari dañoo génnaan ci idée dafay campagne nangam nangam nangam c'est normal mu wax ko parce que Ousmane Sonko même bu politique dafa war a politique parce que politicien mais lii mu wax ni ça n'a rien à ak politique Macky Sall dafa yàq réew mi ci façon yàqin woo xam ne dafa jéggi dayoo dégg ngeen fi lu tolloog ay deux mille sept cent kilos d'or yu ñu rawale ay yu bari te damay wax ne bu ngeen xoolee scandale yi fi jaar. ngeen xam ne Ousmane Sonko li mu wax boo ko comparé ak Ousmane Sonko da nga xam ne dëgg ju wér la wax da ngeen da ngeen xool loolu kon tey jii nii ñi taxaw naan dañuy layal Macky Sall ñoom ñëpp ñoo taxawoon xas Macky Sall saaga ko ne Macky Sall dafa sàcc àllu réew mi Yérim Seck wax na ko plusieurs fois Bougane Gueye Dany wax na ko plusieurs fois tey buñ ñu taxawaatee ne Ousmane ko waxul dëgg damay laaj ba xam ñun ban Sénégal lañ nekk ban Sénégal la ñu nekk ba tey nit am fit wu toll ne wax sa waxi démb nekk fii tegee nga weddi sa bopp mel ne du woon yow nga taxawaat naan léegi la ma waxoon démb ay fen la mais tey li ma wax tey mooy dëgg maanaam Macky Sall sàccul xaalisu réew mi maanaam euh, salfaañiwu ko yàqul réew mi xam nga yàpp Sénégal yi mënul weesu loolu yàpp Sénégal yi mënul weesu maanaam Yirim Seck ak Bougane Gueye Dany li ñu def nii chaque jour que jafee ñu ngi dugg ci yoo xam ne ni maîtrise wuñ ko lépp ngir di politique te jamono bi damay wax ne tolluñ ci jamono politique ci jamono yi. liggéey la ñu toll te ku ne xam ne ne son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi teg ay jéego yoo xam ne nii ci jëmee réew mi ci kanam la ci la nekk chaque jour ka jafee yéen a ngi gis maanaam mi ngi xool nan la mën a def ba jëlee réew mi fi mu nekk ci kàmb gi mu dugg mu génn ko ci yóbbu ko feneen mais damay wax ne ñii di wax nii bu fekkoon Sénégal ñor na leen daañu may ñii batmaa ñu liggéey mais koo xam ne dafa jot nguur même pas trois mois la coow li tàmbali depuis keroog Ousmane taxaw fële ci esplanade Grand Théâtre wax ci mbirum affaire fisc yi affaire fay impôt yi ñëpp a jëfur te bu ngeen xoolee ñuy wax ñëpp ci communauté journaliste yi kese ñooy wax parce que bu ñu nee Yirim Seck ñu ne journaliste la bu ñu nee Bougane ñu ne journaliste la ngeen gis lenn ci ay di sant journaliste yi taxaw naan ay liberté d'expression liberté d'expression est-ce que dafay permettre nit ki su bëggee saaga ndey nit ki mu saag ko ndey su la bëggee traité de menteur mu traité la ko sans am raison. te damay wax ne Ousmane Sonko gis nga waa maanaam ñi koy tuumaal daf fenkat ñoom ñëpp chaque jour que jafee yàlla wan leen yéen ay fenkat yi muy taxu ñu découragé bis bu yàlla sàkk yàlla wan leen ko tax ñu découragé parce que Ousmane Sonko bu ngeen xoolee parcours am fi mu jaar ñëpp xam nañu Ousmane Sonko kenn nu koo tuumaal ci mbirum sàcc parce que Macky Sall boo xoolee ñi mu daaneel ñëpp sàcc la leen daanee Karim Wade da ngaa sàcc xaalis Sénégal ci la ko daanee génn ko réew mi Khalifa Sall Macky Sall da ngaa këpp caisse d'avance bi dangaa ngaa sàcc xaalis xaalis Sénégal ci la ci la yàqee carrière politique am yaa ngi dégg Macky Sall képp ku mu daane ci sàcc la la la daanee ne seul Ousmane ko mooy nit koo xam ne ni Macky Sall wër na ko côté bu ne ci mbirum xaalis mënu koo jàpp mu xool Sénégalais nag ñoom na ñi nga xam ne ñoo ne ci mag Sall xam nañ ne kii ku set la ku maandu la ci lu mu xam nañ ne bu ñu taxawee ne Ousmane Sonko sàcc la amuñu preuve. xam nañ ne bu ñu nee Ousmane Sonko amul xam-xam Sénégal yi ne leen da ngeen di fen ndax am na xam-xam ndax fee ma doon liggéey di inspecteur des impôts et domaines xam-xam moo ko bàyyi Ousmane Sonko xool nañ ko ci juddu mu nekk borom juddu bu rafet Ousmane Sonko xool nañ ko ci patriotisme mu bëgg Sénégal muy nit ku bëgg Sénégal koo xam ne kenn du ko naatable ndax li mu daj yépp pour Sénégal moo tax léegi daal leen lañ mën a jaar pour jàpp ne mën nañ cee jaar pour détruire Ousmane Sonko mooy lan ñu ne nañ ko traité ne Ousmane Sonko mooy. le pimenteur di Sénégal maanaam mooy nit ku dàq wax lu dëgg ci Sénégal di e maanaam jël loolu nag di ko gëmloo Sénégal yi di ko gëmloo Sénégal yi di ko gëmloo ba fi ne nii koo gis ma contre Ousmane Sonko rek danaan la Ousmane Sonko man vraiment xam naa ne du wax dëgg et pourtant da ngeen di xool keroog bi nga xamee ne dàq nañ ko fële ca impôt domaine ñu teg ci ay quelques mois Ousmane Sonko génn benn rapport bu Mamour Diallo. daan ne ko Mamour Diallo kaay fii jël nga 94 milliards au Sénégal ñëpp a taxaw ne waxul dëgg day fen kii fenkat la kii du wax dara du ci dëgg kii buy nelaw sax day fen di ko traité de tout les noms Ousmane Sonko ne leen lii du yombe doon topp leen ci yoon topp leen ci yoon yoon di ko négliger parce que li fi nekkoon ci yoon du woon yoon ay ñu Macky Sall daan manipuler ñoo fi nekkoon Ousmane Sonko da ngeen di xool bi mu nekkee ci euh, opposition ñaata nit la amul benn plainte bu ci am amul Ousmane Sonko topp topp Mamour Diallo. bu yóbbu ko OFNAC OFNAC ne ko effectivement wax nga dëgg Mamour jàlloo dafa sàcc quatre-vingt-quatorze milliards Sénégal te ay Moustapha Diakhaté nit yu baree bare dañ doon Ousmane Sonko waxul dëgg day fenn dafay justifier liñ ko dàqee fële ca impôt domaine mais finalement OFNAC jox na dëgg Ousmane Sonko kon ñi ko doon wax dañuy fenn naan day fenn ñoom ñoo nekk ay fenkat deuxièmement gis ngeen dossier Mame Mbaye bi dañ ko condamné par diffamation ne Ousmane Sonko dafa diffamé nit ki dafa fenal nit et pourtant ñoom ñoo fen ana Mame Mbaye Niang dawul la Ousmane Sonko waxoon amul rapport amul kon Ousmane Sonko képp ko koy traité wax wax ko lu dëgg loolu damaa yaakaar ne dangaa xamul sa bopp amul Ousmane Sonko nit la koo xam ne nii wallaahi la azim politicien bu mel ne moom ci réew mi amul. parce que yéen politiciens li ngeen jàppoon politique mooy di fen ak di sos comme ni ko Bougane di defee nii xooleen Bougane bëgg dem gàcce gi mu am ci kanamu Sénégalais yi nee na Ousmane Sonko dafa woo Cheikh Diba ne ko ñëwal ci réunion bi. Cheikh Diba xool chiffres yi nga xam ne Ousmane Sonko envoyé mu ne ko du ma ñëw ci seen tappale yooyu ndekete Cheikh Diba mi nga ànd ak son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fële ca États-Unis sëñ bi kii borom glace du seey te ñoom seeni wax lépp noonu la lañ yoo xam ne ñoom dañuy dañuy wàcc ba pare di ko lekkaat da ngay xool seen coalition bii nga xam ne daanaka mën nga ne ay dëmm yu lekkante seen biir lañ bugaan ngay dani amul lu mu yekkul Khalifa Sall yaa ngi may dégg. Bougane Gueye Dany amul lu mu yekkul Macky Sall te tey ñu ngi def intercoalition Khalifa Sall Macky Sall moo yàq carrière politique am tey ba nga dem def ak moom intercoalition Barthélémy Dias Macky Sall moo ko tey amul lu mu waxut fii taxaw ni fii ne Macky sàll mérité wul may toog ak moom mérité may wax sax di ko tudd tey nee na di def intercoalition ak ak Macky Sall Papa Djibril Fall. taxaw na fii ne Bougane Gueye danañu ab dictateur nga parce que seetale bi gis nga def nga fa loo xam ne injustice la ci ay journalistes yoo xam ne leen daax til tugul ci yoon tey ñoom ñoo coalition waat ni dañoo boole seen bopp naan dañoo tuddee seen bopp maanaam sàmm sa kàddu te ñoom ñëpp ay workat lañ ay fenkat lañ duñu wax dëgg nga xool Déthié Fall nga xool ay Anta Babacar Ngom xam nga Sénégal yaakaar naa jamono bii leer na ci bopp Sénégal yëpp que ne ñi ay politiciens kese lañ luñ la wax soo ba ngoon du dëgg dañuy manipuler gis ngeen démb ñu woo Bougane Gueye Dany ñoom ñëpp ñu teew fa naan non lii wuute na nguuru Macky naan lii moo nguuru Macky Sall ñoo yem parce que Macky Sall ñu la fi nekkee woon Macky Sall nii la fi nekkee woon ce que ñii àggagu nañ nga takk bracelet ñu jàpp la yóbbu ci kaso bi bracelet est ce que ñii àgg nañ ci nga sol t-shirt ñu jàpp la ci kaso bi nguuru Macky Sall ñaata détenu politique la Macky Sall jàpp yóbbu ci kaso bi ñoo xam ne defuñu dara ñaata nit ñu ne ci kaso bi. ñii seen soxna dee ci seen ginnaaw ñii seen doom faat nañ ñii seen yaay faat nañ seen ginnaaw mais ñii di wax ni tey ana ñoom fan lañ nekkoon booba ñii di wax nii naan dañuy défendre liberté d'expression bi Macky Sall di jàpp nit ndax dafa takk bracelet bi Macky Sall di jàpp nit ndax wax xalaatam ci réew mi bi Macky Sall di jàpp nit ndax dangaa sol t-shirt boobu ñii fan la ñu nekkoon et pourtant ñii li ñu wax ni yoon moo ko tere maanaam sosal nit ki wala nga wax loo xam ne nii wóor na la nañ amu preuve yoon dalay woo tey jii nii ku ne xam ne ne Yérim sekk lii mu wax ni ne Ousmane Sonko dafa fen ba jot réew mi bëgg a fen mu waaye mais mënut a fen ba defar ko loolu ñàkk teggin la ak réewande kenn mësu ko ñemeel Macky Sall te li lay xamal ne ñii amuñu problème ak réew mi Ousmane Sonko lañu amal problème parce que xam nañ ne Ousmane Sonko moo jël réew mi te tekki loxol son excellence Bassirou Diomaye Faye moo tax ñu mere Ousmane Sonko jàppal ko en tey jii nii man gëm naa ne tey premier bi gën a sonn ci àdduna mooy Ousmane Sonko moo tax. mbañeel gi ñu ko bañ ak fi mu jaar génn ci lañ ko yéenewul mu gis naa Assane Diouf mu taxaw ne day xataraa yoo yaay naan Ousmane Sonko ñoo ko fal ñoo ko fi dee jëli moom mooy traître bi gën a bon ci réew mi nit gën a ñàkk liggéey nday gën a waye bi amooy Assane Diouf parce que Assane Diouf bu taxawee fii naan euh, te Assane Diouf yéen ñëpp bu ngeen fàttalikoo Karim Wade la lool ñu jàpp Karim Wade tëj ci kaso bi mu bàyyi Karim Wade dem ànd xalifa Khalifa Sall ñu tëj Khalifa Sall ci kaso bi mu bàyyi Khalifa Sall mu ànd ak Ousmane Sonko ñu tëj Ousmane Sonko ci kaso bi mu bàyyi Ousmane Sonko kon kii bu toppee Bougane war Bougane war naa tiit sax moom ci boppam mais nag Bougane dof la boo xam ne dañ koy nax bu ngeen ni mu nekk di Ousmane Sonko Ousmane Sonko lu di jéem a jaay affaire radical xamul ne moom dafa soof parce que soof a def mënut a weesu ngay def loo gëmul parce que nit ki loo defee gëmoo ko day feeñ sa kanam te Bougane ñëpp xam nañ ne nit la ko soof koo xam ne waye xam ne nii mën a fen mën a fen koo xam ne da nga xam ne Bougane nii vraiment tekkiwul dara tekkiwul yow ndaw ñi bëgguñu la yow chaque jour que jafee nga dugg ci yow bugaan damaa foog ne moom du sax dugg ci réseaux sociaux yi di xool boppam sénégalais yi aw dàll wu yàqu lañ koy tegal ay xaj bu dee ay saret bu yàqoog te buñ boo xoolee maanaam votant yi ñu ñu votal dàll wu yàqu ñëpp ñu votal bugaan mais bugaan fi ne nii wax ju bari la dese ak coow ak nepp yi di mbaw xaj mais xamoo ne Sénégal dañ laa suur te dara parce que sincèrement ni nag nekkul nit ku dëgg kon yéen ñi nekk fi di wax nii gis nga réew mii dina baax par A ou par B liberté d'expression permettrewul kenn nga taxaw di saaga nit wala ngay xas nit wala nga am règlement de compte di ko wax lu bon naan liberté d'expression liberté d'expression baat boobu bu fekkee siiw la ci nguurug Diomaye ak Sonko la siiwee mais Macky Sall xamutoon loolu Macky Sall àndoog moom demal ci émission wax ko lu xaw a wuuteeg li mu bëgg rek mu jàpp la Macky Sall ñaata nit la rey yéen ñi di kas fan ngeen nekkoon. quatre-vingt-cinq morts am na mille et quelques détenus politiques et pourtant yéen ñii ñëpp yéen a ngoon ci réew mi yéen ñëpp yéen a mais lan moo woon ngeen génn kaas lan moo teewoon ngeen génn marche man tey su ma gisee Y'en a marre ne dañuy def yoo yaay ab seen conférence de presse man rek ay ree damay jàpp parce que Y'en a marre ku ne xam ne depuis 21 mars ba ni Macky Sall jóge ci réew mi kenn gisul fu ñu defee rassemblement fu ñu defee conférence de kenn gisu ko. tey jii bu ñu taxawee naan dañuy def conférence presse man damaa gëm ne ay lobby ñoo ne seen ginnaaw di leen yónni mais yaanaa maar gëmuñu li ñuy def sax ñoom ñii parce que ku ne Ousmane Sonko Diomaye ay dictateur lañu waxu leen dëgg tey waxu leen ñii li ñu def ñii li ñu def ku ko def yoon woo la waaw diffusion de fausse nouvelle waxal nit loo xam ne yow dara du ci dëgg amoo preuve loolu yoon da koy tere diffamation yoon da koy tere tey nga taxaw def diffusion de fausse nouvelle yoon woo la ñu naan dictature la ñoom nangam nangam lan moo tey ñu wax la nga xam. te kenn ku ci nekk xam nga lu baax ci Ousmane Sonko xam nga lu baax ci Diomaye mais doo ko wax bërki démb bi son excellence Bassirou Diomaye Faye demee fële ca Nations ngeen discours bu am solo ba mu fa def mais kenn commentaire u ci ñii doon wax keroog bi Jean-Luc ñëwee fii nga xam ne maanaam mooy université Cheikh Anta Diop jean semaine boobu yëpp ñu ne Ousmane Sonko dafa recevoir góor jigéen nangam nangam ñii dañuy may nangam nangam est-ce que bi son excellence jëlee keroog parole. wax nañun suñu dëkk kenn dañu force ay loi yoo xam ne ni maanaam méngoo te su bëgguñu ko keroog kenn encouragé wu ko ana waa Jamra fu nekk waa Jamra lan moo tey keroog ñu bind encouragé Diomaye li mu def et pourtant keroog Jean-Luc Mélenchon fële ci université lu mat 15 jours yoo xam ne chaque jour ka jëfee Matar Gueye Jamra ko gàngooram na ci ginnaaw loolu kon ñii yàlla taxul ñuy xeex yonent bi taxul ñuy xeex dañuy politique ay politiciens ñoo ne parce que ñoom waa Jamra ay naafeq lañu bu fekkoon dëgg leen ñor ak défendre maanaam li ngi li di homosexualité ba du am ci réew mi keroog bi Diomaye taxaw fële ci Nations Unies défendre Sénégal ne kenn du ñu forcer benn loi boo xam ne ni ñun bëgguñu ko wala méngoowul ak suñu culture ñu génn ñu saluer loolu rafetlu ko encourager ko sargal ko mais defuñu ko dañ ne matt mattiral dañ ne miig miigiral kon ñii luy seen problème waaw ana Makhtar Sarr lan nga doon wax doo génn nga dëggal sa bopp li leen war mooy ngeen génn ngeen lu lii xam nga dafa am ñoo xam ne dañoo sikk mu gouvernement bi di xaar ay points négative pour ñu mën cee commentaire xam nga dafa am lu yàlla waxoon ci alxuraan ne am na ñoo xam ne ci àdduna maanaam li ñuy xaar mooy lu bon am bañ siiwal ko ñooñu nag yàlla dañ leen natt ci àdduna dañ leen natt ci àllaaxira yaa ngi dégg yàlla dañ leen natt fii ci àdduna dañ leen natt ci kon tey jii nii loolu la ñu gis fii ci àdduna bi moom lañ ñemeeku kalaasu Jamra ak ay Matar Sarr ak ay Matar Gueye Jamra ñoom ñëpp tey bu fekkoon li doon wax dëgg la ci ñoom danañ génn carrément ne ay la yéwén son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay ñu ngi lay sant di la gërëm ci discours bi am solo bi nga amal fële ca si gën sigil nga der bu ñuul si sigil nga Sénégal jël nga ses responsabilités wan nga àdduna bépp ka ne yow responsable nga kilifa nga te li doon fale man nga ko da ngay xool fu sa fu toll ne Nations Unies de l'État ñoo fa te réew mi ci gën a gis ngeen. da ngeen xool réew mu mel ni tey Luxembourg nga xam ne tey daanaka Sénégal sax ko population ñaari yoon seen président ba génn di li Ousmane Sonko maanaam li Diomaye wax mu di ko ci dal parce que moom lu Diomaye wax daf ko metti loolu mu di ko ci dal kon tey jii nii damay wax ne kon Sénégal yéen li ngeen waroon def mooy ngeen génn ngeen encouragé kii bu fekkee dëgg leen ñor mais li ngeen di xaar mooy benn prof ndox lu am ngeen ne voilà gis ngeen ñi xamuñu dara ñii dañuy jàppale góor jigéen ñii dañuy lay ñii dañuy laaj ñii dañuy sàmbata góor a njaay kon ñëpp xam nañ ne yéen ay manipulateur ngeen gëmoo leen seen bopp te itam ne leen défatir kenn parce que Sénégal xam nañ yéen ay kan déjà dëgg bu la ñoree bu dëgg amee dañ ciy wax bu leneen amee nga wax ci mais yow chaque jour que jafee négatif ngay xool chaque jour que jafee négatif ngay xool Ousmane Sonko li muy discours la ci ëpp solo da ngeen koy jël bàyyi fële di xool ay prof ay faay yu ngeen mën a wax. ñu xool ay fay yu nga mën a wax tey Ousmane Sonko rôle premier ministre lay def yéen da ngeen dem a dem dem a dem ba beneen sens fu ngeen di teg seen tànk ngeen xamatul gis nga réew mii dina jaar ci yoon par A ou par wax lu la neex te kenn du la woo amul fenn réewu démocratie du doxee noonu réewu démocratie doxewul noonu gis nga ñii daañu yor réew mi ci yorin wu rafet te bu soobee yàlla kenn mënul tee ñu gouverner. seen manipulateur yi manipulation yi ngeen def di campagne ale naan ay ñun da ngeen ñëw bëgg a daal yow def nga ne Bougane bu taxawee naan Ousmane Sonko suñu coalition bi la teg bët yow coalition boo xam ne ay zéro yu dajaloo la zéro moom lu mu junniy zéro boo ko boloon zéro lay doon kon tey jii nii bu ngeen taxawee naan Ousmane Sonko daf ñoo teg bët daf ñoo bëgg a daaneel suñ suñ coalition bi coalition boo xam ne Sénégal yi yëpp xam nañ ne oh, ngeen wax ko dëgg dara ñëw leen ci li ngeen di wax ay soskat ngeen ay naafeq ngeen. man de xaw ban Sénégal moo leen di voté laa xamul man ban Sénégal laa moo leen di voté gis nga bu fekkee da ngeen di nelaw yeewu leen Sénégal gii kenn mënutu fee nax kenn kenn mënutu fee manipuler kenn seen yii ngeen nekkee baleen ko réew mi nag jaxasoo na jaxasoo goo xam ne jàpp ngeen ne lu waay neex wax wala lu neex waay def nga ñii maanaam xupp dàqu leen taxaw naa ne ay manipulateur ngeen maanaam ay dictateur ngeen pour que ñu mën a dellu ginnaaw ci li ñu def nii du am force restera à la loi daan wax dañ ciy sax force restera à lépp lu yoon tere ku ko def yoon woola division de fausse nouvelle yoon da koo tere ku ko def yoon woola difaama nit ki boo ko defee yoon woola tey ji xam ngeen ne Yérim Seck mii lii mu def nii ñëpp génn commencé naa ne voilà ñii ñoo Macky Sall yéen a yem képp ku wax loolu naa fekk nga ñii demuñ bay waaj a yem ak demuñ bay waaj a yem ak Sall ndax Macky ñii lu mu bon bon déggu la ñu ne nit dee na fi ndax ñoom nit dee fi ndax ñoom kenn dégg ko fi Macky Sall ñaata bakkan la wadal diggante bi mu toog ci ci réew mi ñaata bakkan ñaata nit la tëj maire Amédia bi ñu koy jàpp di ko tëj ci kaso bi ana société civile fan lañ la nekkoon lan la def ah. bi ñuy jàpp imam Ndaw di ko jiñee terroriste fan la nit ñi nekkoon. xam nga Sénégal dafa bari ay naafeq yoo xam ne nii yàlla taxu leen di wax yoon ay naafeq international lañ yii ngeen nekk ngeen bàyyi te xam ne Sénégal yii fi ngeen di xalaate la ñuy xalaate fi ngeen dégg la ñuy dégg ëppale leen xel lu yoon di bañ ko ko def dañ lay woo yabaa yëpp ñi fi nekk nag moo tax ngeen nekk bu luñ ne nii ngeen ne walla ñii nangam ñii nangam ñii nangam loolu day jeex par A ou par B. loolu day day jeex par A ou B am na loo xam ne kenn du ko bàyyi kenn du mu jàll waaw gis ngeen fi barki Démo Ndiaye benn jëm bu ñuy wax Kader xaw ma taxaw di sosal la police national naan dañ leen di corrompre booy dem ci gaal gi da ngay seet lii mais lii est-ce yoon woo la en tant que police nga taxaw di ko sosal yoon woo ko ñu ne voilà lu yoon di ko woo ah mais est loolu am réew la est loolu am réew la. yow nga wax say wax yoo xam ne amoo ci benn preuve yoon wala pour nga leeral nit ñi taxaw fi naan mais wala ñii ne kenn xàmmitu nag Macky Sall parce que ñii nangam nangam ay dit gis nga loolu arrêté leen il faut arrêter il faut arrêter sénégal yi xam nañ bu baax a baax a baax a baax ki tooñ ak ki ñu tooñ yéen nit day tooñ ba pare ngeen bëgg ko jox dëgg loolu mënul nekk mënul nekk tey jii nii nit bu waxee dara te amoo ci preuve amoo ci xam-xam da ngay noppi. mais Ousmane Sonko wax bari nga ne waxul dëgg te yow tegoo fa dara loolu problème la gis nga régime bi yebeel gi ma gis nit ñi yeb leen damaa yaakaar ne maanaam ñoom ñoo leen ci bàyyi tey il faut ñu teg ay maanaam daan yu sévère yoo xam ne seen kaw képp ku fi taxaw di fontoo njiitu réew mi wala premier ministre yoon daal sa kaw parce que nag dëkku démocratie lañ ne dëkku euh, maanaam yoon la ñu ne lu neex waaye wax te dara defee fekk loolu amul fenn. nit ki bu fekkee Ousmane ko dafa wax ne lii ma wax kat dafa leer képp koo xam ne ba ngi ci am lu leer demal nga vérifier ñi war a tontu tontuwuñu yow nga génn di tontu te xamoo dara ci li ngay wax yoon wala ñu ne voilà ñi ay dictateur lañ bàyyi leen naa fekk ak di manipuler askan wi loolu kenn mënu ko fay def kenn kenn mënu ko def kenn te ñii ngeen gis ñuy wax ñépp dañoo xam ne leen du yoon gis naa Massaly moom itam mu génn di xatraay Massaly masal gis naa mu génn xataraayu te yéen ñëpp xam ngeen ne masal yi moom am na lu ko doy sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk ñii ngeen gis ñu wax ni ñëpp ay daw laa lañ am na lu leen doy sëkk sëkk sëkk Anta Babacar Ngom xam na la bu baax a baax sa bàyyi la yónni yaa ngi dégg Papa Djibril Fall yow li tax nga daw dem rejoindre coalition bi xam nga ko élection législative yi nga duggee ci yi nga amee député la nga amoon asakaja bi nga demee élection présidentielle amoo ko. Sénégal dañ dañ nañ ci yow te Pape Djibril Fall yow moom dangaa ngaa raté bu rëy boo xam ne ilaa mi dindoo ko amati parce que da ngaa gagné woon confiance suñu jeunesse Sénégal bépp ndaw ñu jox la am fuñ la teg bëgg la di la suivre di la topp nga dem ba yàgg nag ñu jay la nga ne yoo yaay da ngay diir mbagg Ousmane Sonko ñëw di victimisé wu dañ maa saaga dañ maa xas fee dañ maa sànni xeer dañoo toj sama oto di jéem a victimisé wu di jooyee ko def yëf automatiquement ci nga soof sénégalais yi tey jii bu fekkoon ne wàcc ko yoon wi nga nekkoon mën ngaa def sa politique man ngaa bañ a ànd ak Ousmane Sonko jël sa yoonu bopp mais doo xas Ousmane Sonko doo ko gaaruwaale tey jii heure bi mën naa fekk nga nekk ministre wala nga nekk nangam mais ay nit yu lay conseil conseil yoo xam ne dara baaxu ci nga topp ba surux ci kàmb goo xam ne tey ilaa mi din doo ci génnaat tey yaa suruxal sa bopp gis nga yéen ñii ñëpp ay perdant ngeen ay politiciens perdant yoo xam ne tekkiwuñ dara dem ak bëgg démb ñoo taxaw fi di am leen lu ñuy wax lan ngeen di wax buñ leen nee wax leen lu ngeen di wax laa xamul man réew mi moom képp ku jàpp man ngeen xupp xupp Ousmane ko wala Jomaay bañ dellu ginnaaw ci yoon wii nu jël yéen a ngi nax seen bopp réew mi dina baax ci nii mbaa mu baax ci nee liberté d'expression dafa am fu mu yem chaque jour que jafee ngeen gis lenn ci presse bi di bindu lu leen neex di xas ay gor loolu nag yaakaar naa ne dafay jeex ci ni mu gën a gaawee parce que am réew du doxee noonu wax lu la neex ndax mere nit ki dafa war a jeex ma jamal jaan gis ngeen ko lu jóg mu moom moo xam dara. Madiambal Diagne moom moo gën a maanaam moom gis ngeen ko bi nga xam ne jàpp nañ Sérone Bandiaky bi ñu jàppee Sérone mu njëkk génn di tiwite ndax tiit bugaan keroog biñ bugaan moo njëkk taxaw fii di wax ko jàpp gis nga réew mii li ma leen wax dafa leer baye boo ngeen xam ne Sénégal dina baax ci nii wala ci ne te bu soobee yàlla ñii ñi leen faloon la maanaam euh, le 24 mars 2024 bii ci kàttanu yàlla ñooy jëlaat majorité assemblée nationale jox leen parce que ku ne xam ne musiba la ci ñii nga xam ne dañuy wàcc di ko lekkaat ñuy am majorité assemblée nationale yow koo xam ne dangay ngay wàcc di ko lekkaat lan nga doon assemblée ay workat magi démb yoo xam ne immunité parlementaire kese lañ soxla mbalaanam kiir laay moo tax Sénégal yi nañ gën a laxasaayu gën a takkaayu jël assemblée nationale teg ko ci loxoy premier ministre bi Ousmane Sonko ñu mën a defar réew mi parce que nag jamono bii dafa mel ne Sénégal bu doon fetal jomaay fetalu kese la yor bal yi mooy assemblée nationale nañ ko jël ñu jox ko ko ñu mën a liggéey réew mi réew mi mën a dem ci kanam loolu mooy li nga xam ne mooy li warta mooy yoon parce que nag ñi nga xam ne ñoo xeex projet ba mu toll fii yaakaar naa ne teel na trop ñu teg seen i arme na ñëpp jëlaat seen i arme préparer le 17 ñu daal di fal wala boog ñu am fa ñu am lii ñuy wax maanaam majorité fële ci assemblée total 155 députés ñu am parce que loolu mooy li nga xam ne maanaam mooy moom la réew mi soxla su boobaa benn daw làqu du xamante fu mu jëm te mboolem ku yoon war a topp daañu la topp ñu teg réew mi ci yoon ñu génne xaalis Sénégal bi teg ko ci yoon parce que Sénégal dëkk boo am xaalis la mais da ngay dégg milliards yi ak rapport yi nga xam ne mooy yi mag salté goon concam tey rapport yooyu génne léegi na la ñuy def tey jii nii kon Sénégal nañ ñëpp taxaw laxasaayu fas yéene tegaat réew mi ci aw yoon loolu mooy dëgg tama yoon ñu mel ne kon loolu moo fi rusante woon ci ay xabaar ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di wax ngeen kon di wax seen xalaat ci commentaire da am solo